démb dañu jox hmm. kàddu ku ci mel ni professeur Mounirou Sy mu dellu si waat ndax dama gis benn tweetam boo jàll ci réseau social bi di Twitter par rapport ak euh, mu am benn euh, sit bu am lu mu bind mu ne dafa benn échange seen diggante yéen ñaar effectivement dañ leen invité woon le 3 avril dernier sur le plateau de la TFM pour décrypter le discours euh, du chef de l'État day day baax aussi yow aussi ñu jox la kàddu qu'est-ce qui s'est lan moo xew entre intellectuel xëy na des fois du ñàkk réeroo c'est tout à fait normal mais su demee ba mu xaw a andi tuuti jiixi jaaxa dafay baax aussi ñu leeral jox la yow aussi nga joxe sa point de vue. jërëjëf soxna Adja euh, xam nga man dans l'espace public dama def ba dama naan toujours sama yar. Mhm. nit ñu yare la. mosuma wax wax bu ñagas mosuma wax wax bu déplacé mosuma jàll kàddu kenn. nit ñi xam nañ ko ci man boo amee rek nit ñi nañ ko génn waaye nag comme ni nga ma ko waxee comme jox nga ko kàddu te keroog wax nañu te yeggul woon war naa mën a wax li xew c'est très man je suis enseignant chercheur recruté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar comme assistant titulaire à l'université grade yi am professeur la maître de conférence ak assistant donc boo ko déggee mu naan man étudiant laa kon waxul dëgg première chose parce que li muy wax naa man damay def suma thèse d'accord mais quand tu fais une thèse c'est de la recherche am na ñu ko mun a def dem done étudiant étudiant la ñu certes mais man je suis enseignant il ma reste ma carrière il me reste presque plus de vingt six ans donc li muy wax foofu du dëgg beneen bi ci topp mooy man je n'ai jamais jamais revendiqué un titre de professeur d'université comme di ñu koy waxee la preuve je signe mes travaux mes articles sama dernier papier dans le mélange du doyen Demba Sy sur le régime électoral du président de la République kon nga xam ni droit constitutionnel lay jàngale fa nga ko signé assistant de droit public et pourtant par commodité de langage yow da may woowee professeur mais musuma la wax damay rectifier est-ce que sur un micro am naa temps di rectifier nit ñi moom yaa koy woowee professeur moom yaa ngi koy woowee professeur demal nga xool titre am. c'est un professeur. non am na agrégation. non amul agrégation benn moom boo ko doon kii maître de conférence rek la mën a doon te moom mënul sax avancer tey du point de vue du CAMES parce que jàngalewul ci benn faculté droit. si muy université Iba Der Thiam. mais foofu amul droit foofu demal nga xool amul droit man maay jàngale droit constitutionnel moom gëj na koo jàngale. beneen bi dégg naa la dégg naa ko mu naan la moom jàngale na 10 en France waa na wax ban statut la fa jàngale man nee naa deux grandes universités laa jàngale en France muy université de Grenoble avec mes diplômes sénégalais moom laa def à l'université Gaston Berger de Saint-Louis 13 ans après lui ma dem ramper à Grenoble doon vacataire pendant laa ko def deux ans ñu jël ma statutaire à La Rochelle demal nga laaj ñi nekk La Rochelle ma nekk à bi may ñibbisi fii ñu may jël Stéphane Pinon moo ma defal lettre de recommandation daf ni ma toogal fii boo paree sa thèse tu peux être de conférence tu peux faire une thèse euh, tu peux faire une carrière pendant 40 ans ma ni ko damay ñibbi c'était pas le projet. d'accord donc li ma mun a wax mooy Mouride déjà li mu wax waxul dëgg. la deuxième chose mooy li muy bàkkee boppam di wax professeur la il ne l'est pas ah. la troisième chose mooy jàngalewul droit constitutionnel parce que nekkul ci benn faculté de droit ce qui signifie que munir moom ci boppam mënut a avancer beneen bi si mooy li ma bëgg rek leeral ci loolu mooy très rapidement vu que ñoom ils n'ont que ça contre man man à l'université Cheikh Anta Diop je suis statutaire et je suis fier de mon grade et lu mel nii daan nañ ko wax Cheikh Anta Diop teewul tey jii bu ñuy wax la référence scientifique moom la. donc bugguma sax dugg ci yenn considération yi ndax yar biñ ma yar. alors mais li ma mën a wax mooy. Mhm. éléments yi ma la jox ni day wane ni moom li mu wax yépp c'est des contre